Euh, sëñ bi nuyu nañ la ziar la. waaw ah, maa ngi lay fay. yaa ngi en direct sur Feeling Dakar. oui maa ngi nuyu ñëpp ñu nga xam ñoo seetaan à euh, travers Feeling Dakar. may waxee ni maa ngi woon assemblée nationale tey ci li nga xam mooy sexe extraordinaire bi nga xam da nga ko doon tëj tey ci délai mhm. bi nga xamante ne moom la yoon wax muy fukk fan ak juróom. Mhm. bi mu xëyee suba jamono tribunal seet sama xarit Ousmane Sonko. Mhm. ba ma fa jógee wax naa li ma war a wax parce que xamoon naa ni tey fii nga xamante ni fii la toll tey foofu lay mujj parce que nag képp ko am nga lecture politique xam nga ne état Sénégal képp ko jog pour jàmmaloo ak moom ci dëgg ak jubal lépp lu mën ci faagaagaloog mi Macky Sall dana ko def ndax euh, Ousmane Sonko dafa jóg indi lu bees depuis 2014 ba léegi ni koo xamante ni dafa wane jub askan wi topp ko ci loolu mu génn benn procès askan wi gëm procès boobu noonu. projet boobu noonu moo dem tey ba xañ Macky Sall mi waroon def troisième mandat defu ko nit ki boo ko yàqalee troisième mandat lépp lu man tey fayu ko pour yàqale ko dana ko def te comme man waxoon na bu yàgg ba léegi ni pour Macky Sall dafa bëgg a dem mais buy dem day yóbbaale te boo xoolee loolu sama kàddu yooyu Barthélémy Dias waxoon na ko aussi euh, muy loo xamante ni lu ñuy ñaaw si démocratie parce que réew mi fu mu toll waruñu maanaam daal di jàpp ay opposition di leen tëj. ci loo xamante ni tegu si yoon la mhm. ndax ku ne xam ne seen dossier dossier bare ba seen dossier politique te ñii ñu ko def tey jii man mii di wax def nañ ma ko mhm. jaay ma doole tëj ma si kaso bi ma nekk di ba te ko fenn mhm. ba yàlla dogal tey fi ma si fi te Sénégal nag euh, dama faral di wax ni mooy nit mënu koo defar te amul jàmm nit mënu koo yor tamit te amul jàmm te Abdoulaye waa doon wax naan moom du jaay si ay néew pour àgg pale waaye tamit du jaar si ay néew pour génn pale kon ñun ñëpp dañoo war a bàyyi xel loolu mhm. xam ne réew mi ñun ñoo ko bokk ginnaaw boo xamante ni su si jël na décision bi mu jël pour def mandat de dépôt Ousmane Sonko mhm. ñun du man lu dul maanaam naqarlu ko ñaawlu ko mais dañuy xam ne suuf boobu noonu lu ñu mën di mel ñun moom la ñu am mhm. parce que kon ne xam ne procureur la république dafay am kilifa war na ko moom ba wax ko kilifa mooy procureur général procureur général kilifa mooy ministre la justice ministre politicien la boo xamante ni benn kilifa am muy Macky Sall njiitu parti ñu ne buy jógee fenn jëlee ndigal fenn ci njiitu parti nga nekk maanaam yow tamit njiitu parti te arrangé ko mën a jël si ndigal loo xamante ni du la arrangé wala du arrangé réew mi moo mi toll. mais bu lépp àggee nag euh, bon comme lii du fi gan ndax boo xoolee depuis du Dia amoon na fi amoon na fi jamonoy Ablaye Wade am na fi jamonoy Karim am na fi jamonoy Khalifa Sall am na fi ba man mii di wax ak yow. Mhm. mais lépp lu mën di doon lu nekk la may woote mooy dal ak jàmm woon ndaw ñu ànd ak dal parce que nag procès boo ko dee gëm te woo day xam ni en long terme lay doon du caayin ki nit ki lay doon nga xam-xam mi ngi fi même bu dul moom am nañu ko mën a porté te bu ñu ko porté jafe-jafe yi nga xamante ni tey moom lay dund ak njabootu di ko dund mën na ko si génne di am ñeewantal si moom parce que tey jii lii ko dal bëgg Sénégal moo tax mu dal ko mhm. ndax bu ko neexoon bu defoon na ñeneen ñi lii ko dal du ko ndax ñi ànd ak moom ñëpp tey situation bi Sonko dund ñoom ñëpp seen loxo mi ngi ci parce que ndaw lu jug loxoom set amul ay mag yu ko encadré ñi mu siqal làngu politique ñu si bëree bari maanaam moom gëmuñu ko parce que gëmuñu ko mooy nekkam mhm. tant que mi ngi nekk ñoom duñu nekk mhm. ñooñu duñu def tout pour que maanaam moom mu bañ a nekkati bon léegi nag lu ma faroon doon wax naan àddina loo gisul nekk waxtaan dafay am solo ci lu mën di doon mhm. kon waxtaan boobu noonu moom laay gën a waxaat bi ñu ñëpp dañoo war a war a tënk pour fexe nag def waxtaan parce que waxtaan moo war a mën a am lu bare bare saafara parce que guerre sax ci waxtaan la mujj muy ger mondiale muy Ukraine Russie ñu ngi fay waxtaan muy guerre Côte d'Ivoire waxtaan boobu noonu pourquoi pas ñun mënuñu ko def suñu biir te fàtt suñu bopp te bañu topp xadar wax loo xamante tax ki nga xamante ne maanaam moo nekk tey si ay xat-xat. nga xamante ni fa mu nekk mënul fa boppam dara loolu dafa war a wikkurlu si yàlla ñu ko mënal dara te ne si biti nañu privilégié waxtaan te bañ a privilégié wax ju ñaaw parce que wax ju ñaaw wala woote fitna dafay yàq am réew te moom li mu bëgg réew mi ba di ko wax am procès ba di ko wax jàpp naa ne bu réew mi yàqoo ki fi nekk la yàqul waaye moom te moom la yàqul ak ñun ñi xam bëgg nañ laa réew mi 2024. waxtaan boobu nag chaque jour si moom laay taal sama loxo di ko njëkk ci kilifa ñu dug taxaw njëkk ko si au pouvoir bi ak opposition bi ñu def benn table boo xamante ni ñëpp luñ koy wax fa fàtt suñu bopp bu jëree sax ñu dàq élection yi ñu def ko pour intérêt bi parce que nag am réew kenn mënu koo wut ci élection te amuloo jàmm mhm. te jàmm amul prix jàmm moo gën alal mhm. jàmm moo gën nguur kon damay woo ñëpp ci jàmm ak dal mhm. di wax président Macky Sall mi yàlla dogal mu toog si bopp réew mi te xam ne wax na jeexal na xam ne yàlla moo ko fal fukki at fukki at ak ñaar moom la war a def li ko dese juróom-ñaari weer la mu gën a ubbi boppam ubbi xolam yaatal li nga xamante mooy dënnam xam ni bu nit jiitee ñëpp lay jaboote di woo aussi Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñu privilégié dialogue waxtaan te xam ne xeex mënut a sotti dara tey jii tey bu waxtaan amoon peut-être fii mu agsi du fa agsi mais comme fi agsi agsi na fa bu pare def nañ ko mandat dépôt def décret tas partem aussi muy loo xamante ni tey euh, lu gën lu lu perception nga am ci li nga xamante ne mooy dissolution parti waaw parti bi tas parti bi mhm. parce que boo xoolee man mhm. depuis suba ba léegi wax naa leen mooy beneen yoon bi nga xamante ne maanaam moo topp si ginnaaw buñ ko tëjee beneen bi si toppaat mooy tas parti bi parce que boo xoolee lecture politique dañu nit di am boo samee expérience bu ñu jëlee maanaam ay fait inculpé ko nit dem ba dugg si affaire tourisme ak financement touriste da nga jiite a benn association te ñun fii ensemble sax ñu wote woon benn loi boo xamante nii mhm. dañoo waxoon ne maanaam képp koo xamante ne da nga jiite association muy parti politique muy lu mën doon bu fekkee dem na ba xamante ni maanaam parti boobu gis nañ ci affaire terrorisme bi dañuy décider loolu parce que ensemble sax ñoo ko wote woon mhm. ci ci treizième législative bi biñ ko wotee ñun biñ paree dugal na li nga xam mooy recours constitutionnel pour wane ni lii dañ see bëgg sukkandiku pour tas parti politique yi bi loolu amoon na amoon na fi si très législative booba peut-être ñi fi nekk ñi xamunoo loolu. parce que lu mel ni lan doon seet parce que nag nit bu jiitee lépp loo xamante ne am na ci li nga xamante mooy parteem moom mooy nekk responsable su boobaa automatiquement mën nañ mën a dusuru as euh, li xam mooy parti bi loolu si texte yi la nekkoon. Mhm. kon texte bi peut-être que comme ma doon bañ ñëw na. Mhm. mais li ma mën di wax rek nit mën nga tas parteem nit mën nga ko tëj mais nit kenn mënu ko génn si xolu askan wi mhm. ak bëgg réewam te loolu yaakaar naa ne Ousmane Sonko dal na ko. en tout cas ñi nga xam ne ñoom la àndal nekk ay ndaw nañu góor góorlu ci gëm yàlla doyloo yàlla te xam ne yàlla mooy joxe yàlla mooy xañe te ku ne xam na ni président Abdoulaye Wade dugg na kaso ay yoonu yoon yoon génn dugg ci gouvernement Karim Wade tëj nañ ko kaso jabaram faatu mënu koo gis kooku yaakaar naa bàyyi ay xale yu ndaw Khalifa Sall tëdd na ñetti at kaso parce man mii di wax yow tëdd na ñaar fukki fan juróom-ñetti kaso sama doom feebar na juróom-ñeenti weer xale baa ngi loolu hôpital raakoo lay lekki loolu lépp si nguur Macky Sall laa ko doon teewul ma nekk nit teewul ma tudd Cheikh Abdou sant Mbacke sëñ Bamba di sama maam ma nekkaat député gañëwaat Touba ñëwaat fii nii loolu lépp dama jël sama mbir wékkoor ko jaam wékk ko si yàlla mi nga xamante ni mooy borom kun fa yàkkoon lépp lu dal nit moom moo la ko dal mm-hmm. en tout cas di masawu coono di masawu coono ay jabaram muy aawoom ak ñaaralam xam naa leen samay jabar leen samay soxna leen sama njaboot la ñu bokk parce que heure bu ma fa masaa dem ñoom ñoo may toppatoo di masawu doomam ay doomam di masawu waa partem surtout que yaayam bi nga xamante ni mook sama yaay ay mbokk lañ ñoo bokk menn maam di masawu ñi nga xam ñoom li jëtee tey xolu mbokk moo ma moo ma moo moo ma dal mais tamit damay xam ne politique boo si duggee lu nekk mën na si arrivé mën nga si dugg kaso mën si ñàkk Mhm. mais engagement c'est un engagement patriote lay doon boo xamante ni sa réew moo tax nga di ko def ku xeexal sa réew nag ba wàcc am nga jaaraam kon damay wan ni lii ko dal du gàcca ndax bu fekkonte ni tey dañ ko jàpp si leneen loo xamante ni luñ koy tuumaal si lu ñaaw la mooy luñ ko doon tuumaal deux mille vingt et un fekkonte tey si loolu lañ ko condamné dana métti ay njabootam dana métti réew mi mais tey lii ñu ko tuumaal ne moom man seen ko condamné topp ko si loo xam ay fen yoo xam ne dañoo waxoon ne deux ba léegi moom moo ko def. Mhm. te boobu ba léegi maanaam ñu gis nii bon moom wax na état bi nee na li mu wax yëpp responsable si moom la. Mhm. moom la wékki boppam ci yàlla mi nga xamante ne moo du jeexal dara wékkilu si yàlla comme ni mu ko def gëm yàlla te nangu dogalam. te bañ aussi tamit nit ñi bañ a woo nit ñi ñu wàcc ci mbedd yi di taal ak di yàqal di jàmbur mm. ndax tey ni réew mel économique bi tey banque yi ubbiwuñ oto yi dawuñu nit ñëpp ragal yàq image réew mi loolu tamit àddina jëru ko politique jëru ko mm-hmm. kenn ku nekk tey bu yàlla bindee ne da nekk njiitu réew àla kulli alin bu fekkee da ngay génn kasa dugg pale sax yàlla dana ko def parce que yàlla rek moo fi nekk nguur yàlla kese mooy sax geneen nguur saxul mm-hmm. yaakaar naa ne loolu mm-hmm. Mm-hmm. moom rek laa si wax pour que maanaam di masawu tey xam ne tey Sénégal am na naqar honorable mère Bamba question bi nga xamante ne mu ngi ko bëgg a laaj honorable ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu oui voilà certainement da yaa ngi koy wax say propos junj comme peut-être pare ngeen dox médiation pour que même ñu repousser les élections est-ce que loolu it euh, ak fi mbir mi toll ak la dissolution du parti Pastef jàpp nga dina mën a yomb non dégguma dégg wax Bamba dégguma li wax. Bamba nee na yéen a wax yaa ngi wax sànq ci sa biir wax que ni pare ngeen pour def ab médiation dox ci diggante Ousmane Sonko ak Macky Sall nee na. Euh, pour ñu repousser élection yi est-ce que dina mën ndax dina mën a yomb ak jamono ji li nga xamante xew na ba ñu dissoudre. li nga xam nga xam nga loolu li ma ci def depuis démb ba léegi maa ngi ci maa ngi ci wax ak kilifa yi li ma ci war a dox dinaa ko dox. li sotti nag yàlla rek moo ko xam man lu baax laa bëgg lu baax laa yéene réew mi. te damaa jàpp ne réewum Sénégal dépensé na yenn yi expérience mi ngi fi xam-xam mi ngi fi di mi ngi fi te réew mu Sëriñ Tuubaa defar ma Maalik defar ko ba mag si fii nii ñun waruñoo xool mu yàqu ñun ci njabootu mag ñu baax ñooñu la ñuy bokk lu ñu li ñu war ñun naan en tant que maanaam kilifa diine mooy woote jàmm woote dal ba pare di ko dox parce que loolu la ma Sëriñ Muntaxaa déggaloon deux mille vingt et un ci loolu laa nekk ba tey luy yomb luy sotti nag loolu si loxol yàlla la nekk waaye man jàpp naa ne daal ñi bëgg lu baax comme man képp koo xam ne mën nga nga jógal dugal sa loxo pour jàmmi réew mi pour daal am ci réew mi. Hmm. waxtaan ak ñaari wàll yëpp ndax léegi li am am na mais boowul xool ni képp kuñ fa mas a condamné mujj nañ la baax aussi. parce que la ma lay wax jamono yi Lamine ko condamné teewul ba nan ko jamono yi euh, Mamadou Dia biñ ko condamné Abdoulaye Wade tëj ko si kaso bi teewul ba nan ko. Hmm. Idriss Seck tëj nañ ko si kaso bi teewul ba nan ko Khalifa Sall teewul ba nan ko Karim Wade ba nan ko allah kulli alin dañ koy bàyyi. xaw ma kan lay doon ndax àpp yàlla moo ko xam yàlla mi bindoon ni ko bala ngaa mën a jiite réew mi da dugg kaso bala ngaa mën a jiite réew mi da ngay def nangam yàlla mi bind loolu yàlla moo xam àpp bi mu ko bindoon ko tey da ngay dugg kaso yàlla kese moo xam suba lay génn moo xam ginnaaw suba lay génn kon lii si loxo yàlla nga ko teg. Hmm. mais ñu leen man mooy sabablu boole ko ñaan ak waxtaan ak ñi nga xamante ni tey ñoo jiita réew mi pour jàmm réew mi ak réew mi di woo Sénégal yëpp ñu maase ànd ak dal. moo si ànd ak gëm yàlla te muñ te xam ne lii kat nekku loo xamante ni c'est la première fois mm-hmm. di masawu ay njabootam di masawu fay parce que xamuñu ko dal seen kaw depuis ñaari at wala ñetti at mm-hmm. ñu ngi dund maanaam lu mel nii ci ay bundu xataal ci ay stress yoo xamante nii ñu ngi fi ak ay wax yu ñaaw yoo xam ñu ko def seen jëkkër ñoom ñu gëm yàlla lan muñ ko kon muñ googu noonu nañu ko continuer parce que kat tey ku baax ku nekk rek fii nga xamante ne tey fa la jaar ku baax ku nekk jaar na foofu jërëjëf mm-hmm. mm-hmm. léegi léegi honorable par rapport ak assemblée nationale certainement. voilà dafa mel dafa dafa dem voilà. Ah, kon mi ngi noonu. Euh, ñu ngi koy euh, euh, mi ngi noonu ñu ngi koy gërëm moom Cheikh Abdou Bara Dolly moom mi nga xamante ni rek dinay intervenir par rapport ak situation bi nga xamant daal am dina jéem a jot.